notre communauté avec la Galaxy TV Sénégal. l'honneur d'un homme dont l'engagement a marqué nos vies, la population de Fès et la commune de Rufisque-Nord se réunissent pour une cérémonie exceptionnelle. Le samedi 23 décembre 2023, un événement mémorable aura lieu baptême de l'école Badarama Mayasen, autrefois connue sous le nom de École FAS. Cette journée revêt une signification toute particulière, dédiée à la mémoire de feu Badarama Mayasen, un homme de valeur dont l'héritage a illuminé nos vies, son dévouement envers l'éducation et le progrès de notre communauté a été exemplaire. Nous vous invitons à nous rejoindre pour cet événement inoubliable, symbole de respect et de reconnaissance envers cet homme dont l'influence reste profondément ancrée dans nos cœurs et dans l'histoire de la ville de Rufis. Le samedi 23 décembre 2023, soyons tous ensemble pour célébrer le baptême de l'école Padarama Mayasen, honorant sa mémoire et son héritage dans la chaleur et l'unicité de notre communauté avec la Galaxy TV Sénégal. bonsoir chers téléspectateurs de la Galaxy TV Sénégal tey dañoo amaat mbégte ak contenté te walaat leen fii seen i plateau euh, fas yéene nag indil euh, événement événement bu doy waar euh, fas yéene ci ànd ak ñi nga xam ne ñooy comité bu école Fass bu Fass en quelque sorte tey nag ginnaaw bu ma leen nuyoo ba pare jaajëfal leen dalal leen. Euh, jàpp ne sama nuyoo dina leen fekk ci jàmm ak salaam euh, damay am mbégte ak contentement recevoir tey ki nga xam ne mooy euh, monsieur Mbaye Diong mu nekk président du commité pilotage bu lycée de fas lycée boobu nga xam ne dañoo fas yéene rebaptiser ko sous le nom de Badara Mamaya Sène tey ñu dalal ko pour mu ñëw waxtaan ak yéen ci lépp loo xam ne moo aajo ci ngénte boobu ñu fas yéene ngénte école boobu di école fas monsieur Mbaye Diong ñu lay nuyu di la bàyyi nga nuyox téléspectateur sur Galaxy TV Sénégal. Euh, di la fay nuyoo si jàmm ak salaam di rafetlu suñu ñëw fii ci kër gi nga xam ne mooy Galaxy TV suñu premier ñëw kër gi ñu ngi bëgg a miin di euh, kontaan trop trop trop ci dalal bi nga xam ne dalal ñu ci événement bi nga xam ne moom la ñu jublu mu nekk ba euh, école de Fass. ñu tuddee ko Badara Mamaya Sane par décret du président de la République loolu tey ma nekk président comité de pilotage ànd seeg waa Fass yëpp conseil du quartier bi mu taxawal loolu ñu préparer ce grand événement ci nit kooku ñuy wax feu Badara Mamaya Sane ñu may tuddee école de Fass ak rentrée bi place publique place publique

yaroo fa ma fekk fa nit ñu baax nit ñu tabee nit ñu jub ñu yar ñu tàggat ñu mu nekk quartier boo xam ne daanaka ñu ngi ko créé en 1946 am na ñu ngi fa fekk am na ñoo xam ne diggante 46 ak léegi jóge nañ ci mais ñun yàlla may nañu ñu koy sant sunu borom tabaraka wa ñu fekk lu bëree bëri bëri ba xam ne lépp loo xam ne def nañ ko école France def ko ci quartier bi ñun fekk nañ ko moo tax tey jii ñu ñëw fii. wax leen lan moo ñu tax a ak lan moo tax ñu tuddee Badara Mamaye Sène école France. voilà monsieur Mbaye Diong avant ñuy ñëw ci lan moo tax ñuy de Badara Mama école boobu di école Fass euh, dañoo bëgg nga ñëwoon ñu tuuti ci euh, kan est Badara Mama Yacine. Badara Mama Yacine mu ngi juddu 1947 génn àddina 10 juin 2021. mu nekkoon mu nekk Fass xale. màggee fa du dajale ay xaritam di ànd ak ñoom mu nekk ñenn ñi dàngu lañ dëkk ñuy Daara Salaam ñuy Fass ñooy ñooy base ñi nga xam ne ñooy ses amis ñu doon ànd ñun ñu. nekk ay xale di leen xool ba dara nekkoon ku nit ku am engagement ci lépp loo xam ne du ko doon di ci dugg ba yàlla def mu commencé woon ci sport. Mm-hmm. commencé di football comme nii ñiy footballé ci koñ yi créé ay équipe bu quartier bi mu demee ba mu yàgg. commencé nek nek un rassembleur di dajale ay nit xalam di may di may di may ba yalla def mu dugg ci arbitrage arbitrage bu mu ci duggé yalla di dimbali muy dem di dem di dem ba nek district diko fa nek fédéral diko fa nek international diko fa nek président de président su président Kra, président des arbitres du Sénégal du gouvernement sur le plan international Il y ko mu nous arbitres arbitre au niveau de la CAF de ba nekk FIFA que le responsable des arbitres du football mondial tette nag ay xale yu bëree bëri ci amna ñu daan xool sax ba yàgg ñu ne ma mère dafa bëgg tëngéej ndax xërëm ndax bëgg tëngéej bëgg gox li mu formé ci arbitre international bu nekk fii ci tëngéej kenn mënu wax ñu mu toll te képp ku mu ci formé dana la topp loo am mu lay suivi ba nga defar sa kër ñibbu fa loolu premier li ñu xam ci loolu ci wàllu sportif bu ñu jógee ñu suivre ko sur le plan politique. voilà sa micro tuuti. sur le plan politique. Voilà, j'allais venir là. qui euh, nga xamné mom arbitre international, c'est de lui qu'on parle, feu Badara mayasen, euh, arbitre international. Nga wax parcours parcours am solo. en général nous nga xamné dañuy milieu sport bi duñu milieu politique. À chaque fois quand on leur demande ils sont apolitiques. Maintenant lan mo une transition bobu politique politique de njëkk ah. hmm. étant jeune. Union actuellement parti socialiste. D'accord. un jeune quelqu'un à engagement un homme courageux si je m'en souviens dans le feu François.

loolu moo ko may tey ba fi muy toll ba ba muy dem ñëpp dégg ko sur le plan donc moom euh, politique la doon njëkk ko def que sport bi nga xam ne moom la doon def maanaam daf ko doon def depuis bas âge mu màgg waale ak moom euh, ba dugg ci li nga xam ne moom mooy sport bi euh, monsieur Badara Mamaya Sène nekkoon fi maire de quelle année. de 2009 à 2014. 2009 à 2014 mu nekkoon benn. damay wax ne dafa jaar ak jaar euh, maanaam le fait que Badara Mamaya Sène ñëw taxaw imposé wu euh, ñu nommé ko ci lu gaaw si on peut dire mu ñëw nekk meex ci lu gaaw ñëwaat carrière meeram am euh, yàggul dara par rapport ak les autres lan moo lan mooy waral loolu lan moo indi loolu. tey laaj ma loolu aussi Badara jugul woon pour wuti maire. Hmm. am na lu nekkoon ci xelam mu ëpp un candidat. Hmm. ne ko dama la bëgg def maire dama bëgg liggéey defar tënge loolu ko tax demee bi ci biir ka mu yaakaaroon xaritam dajaloo ne yaay candidat maanaam moom dafa am ku mu ngemboon pour mu dem. kooku demul. Hmm. ñu mujjee koo def moom candidat bi. moom ci boppam. gars ne ko yow yaay dem. d' accord si la nangu nekk candidat pour nekk le maire la ville. dugg ci nag waxtaane ay xaritam ay dëkkandoom ñu ne ko fi nga jëm ñu mel nañ ko dañu ànd loolu moo ko tax a dugg ci loolu. ba def première élection mu candidat maire daal di réussir élection yi maire de la ville de Rufisque. d'accord euh, tey Badara Mame né comme maire de la ville de Rufisque ba jóge fii euh, tey Rufisque fas yéene koo sargal euh, jël dénk ko tout tuddee ko maanaam beesalaat ko rebaptisé wat li nga xamné mom moy école face à son nom tey idée bobu fan la jógee. idée bobu am na fu mu jógee ci euh, l'association développement muy ADEF waa Fass mm. accompagné par le conseil de quartier ñoo ci waxtaan bind école élémentaire bi nga xam di bii ba dara def ci lu bëri bëri lu bëri daf ci def lu bëri parce que li tax mën a def ci def lu bëri école boobu toll woon noo foo xam ne boo rombee école bi doo fa bëgg sax jaar mu def ci ay moyens ñu defaraat école bi ba mu rafet lépp loo xam ne waroon na ci école bi mu def ko xam nga am na jamono bu ñu naan ubbi tey jàng tey bu ñëwee xool école bi jaral na ko mu xëy six heures matin toog ci école

tey ñu ngi tuddee ay rue partout au Sénégal ay illustre personne ñu ne cet homme multidimensionnel koo xam ne foog foog mu uyu mm-hmm. nekk icône boo xam ne dafa dëkk ci quartier France Tëngéej Sénégal ville de Rufisque ñëpp xam ko ñu ne kiikat kat na

bi mu ñëwee mu xool ko gis na lii ci yoon mu nga jëm ci président de la mu topp ko ba décret bi génn mu décret bi génn mu xamal na waa France bi génn loolu moo tax mu ne école bi amoon na benn projet boo xam ne nekkoon na à la commune nord maire Assane Kassé bi mu ko xoolee topp projet bi mu doon la réhabilitation des salles de classe mu ñëw xool ne classe yi kat di ko defaraat du baax mu demande ñu raser ko bi mu ko raser ñu construire six nouvelles classes bi ñu ko defee ba pare mu ne du koy inaugurer ñëw fa inauguré classe yi parce que waroon xam la population de Fass ñëw na ko monsieur le maire Assane Kassé bi ñu ko gërëmee sant ko. Mhm. ñaanal ko yàlla ñaanal gudd fan ndax xale la mais xale bu am jom xale bu am fayda te lu mu diggee def ko daal nañu kat damay inauguré école de Fass sous le nom.

Nous ne ko le 23 décembre 23 décembre nous ñu dit « maire Hassan Kassé le maire de la ville Omar Cissé Et d'autres personnes des autorités politiques sportives notables chef coutumier ndey nous avons ñëpp dañ teew ci nous def bés boobu suñu bés bopp ñun waa Fass suñu bés bopp ñun waa Tëngéej suñu bés bopp ñun waa Sénégal loolu moo tax ñu préparé d'accord euh, monsieur euh, comment dirais-je monsieur Mbaye Diong euh, tey euh, su ma nee monsieur Mbaye Diong hmm. Tëngéej si boppam hmm. dañuy dégg tur bi hmm. xam kan mooy mbay jong à travers li nga xam ne yëpp def na ko ci Tëngéej nga koy wax léegi euh, tey ki nga xam ne euh, Badara Mamaya Sène mu nekkoon un grand icône euh, jóge fii dem ñu gis ni war nañ ko mën a tuddee li nga xam ne moom mooy école Fass ma question de savoir est-ce que yow taxaw nga pour xeex le fait que nit bu nekkee ci dëkkam di fa liggéey di fa def dara à son vivant ñu tuddee ko dara maanaam bu ñu koy sargal ñu sargal ko à son vivant mais ñu bañ a bàyyi ba mu génn àdduna ñu soog ko sargal ndax su ma jëlee exemple si yow tey man depuis toute petite maa ngi dégg ñu naan Mbaye Diong Mbaye Diong à travers li nga xam ne def na ko su suñu kaaraange réew à travers li euh, li nga xam ne nii euh, def nga ko suñu suñu suñu ah, ah, suñu kaaraange de de de quelque sorte parce que mbay Diong fii ci Tëngéej

wane ginnaaw ñu soog la tuddee dara mais nit dafay marqué empreinte am muy marqué histoire am ci dëkk ba mu dëkk wala mu def loo xam ne rafet na ñu koy tuddee mu fekki ko buy dem mu demaale ko mais ci ginnaawam lañ koy tuddee mais yàlla moo bind noonu ajuna mm-hmm. soo gisee dañu roy ba roy boobu fekk ñu ci mais esprit mentalité yi comme li nga wax léegi dafa am importance dañu war di xoolaat bala ñuy tuddee nit dara à son vivant ñu teg ko ci kanamu xaritam ci kanamu mbokkam ci kanamu dëkkandoom kanamu àddina ñu tuddee ko lii loolu moom moo gën a baax ñu bàyyi ba mu génn àddina ñu ko koy tuddee ah. man li nga wax dëgg man Euh, j'ai fait ma carrière à la police. J'habite à Rufisque et j'ai grandi à Rufisque. je sais que ko bu baax a je ne pas du tricher. c'est vrai ne moom pas tricher. nga ko surtout mu nekk liggéey boo je ne je ne mën parce que. bu nekkee homme de lépp day yomb ci yow mais da ngay jiital d'abord liggéey pour ëllëg boo demee ba jeexal nga xam lan nga war a jariñ réew mi mm-hmm. loolu may lancer un appel à tous les hommes de tenue ak corps yëpp du mu mënti nekk

muy bànneex muy safaan danaa ca teew te bu ma ci teewee su ma nee bërit ñoom ñëpp dañuy jóg akolaat ma mu nekk sama mbégte. Mhm. loolu lu ma lu ma neex la suma àddina te loolu tamit li ko jariñ mooy euh, sa waajur mhm. sa papa sa yaay say soxna say doom na leen fonk soo leen sonkee fonkee fonk fa nga dëkk fonk say xarit bul xool ku la bëgg ku la bañ yemaale ñëpp

baptême de baptême du mois mois euh, baptême bi euh, nan ngeen fasquene planifier journée bi ni ngi planifier moy euh, comme souba amna veille nocturne manam amna une animation culturelle type de 21h à 23h du programme B. Tchassane le que euh, jean genre euh, flambeau pour lancer un appel à la population pour nous assister à la cérémonie le lendemain samedi matin. l'inauguration le vendredi là ou bien samedi. non samedi mon inauguration mais dafa veille nocturne. ah veille nocturne le vendredi. Mm. d'accord, le 23. Bonjour, nous xëyee suba euh, dañuy camille sibir enceinte et qu'on fa le cérémonie bi ni cérémonie bi di Nous ni été koy par euh, l'imam le président des imams de la commune nord mooy Ibrahim Hadj Ndiaye sous la conduite de notre imam Khalifa abab Diop nous ñooy dalal imam yi ak jàngkatu sibir enceinte ce suñu pas mu def témoignages sur la personne de Badara Mamaya Si nous demain jusqu'à 13 h une dépose def déjeuner déjeuner à 15 h ñu def une cérémonie officielle bi euh, les les les les les les les invités euh, le maire de la commune nord nous nga une commune c'est l'initiative vraiment de ce projet. moi suis commune moi, euh, le ministre de l'éducation nationale bu représenté il y a aussi euh, Ismaël Amadior le ministre des affaires étrangères qui le maire de la ville Omar qui est le premier magistrat de cette mhm. ville qui est le patron aussi des maires de communes. ni Alioune aussi. Mhm. Euh, pressenti président mu le maire de la commune est. d'accord avec le président du conseil départemental. le sous-préfet le préfet nous ñëpp am nañ yaakaar parce que nous ñëpp dem nañ ci voilà voilà légui dem ngeen ci ñom ba jox leen invitation mu donon fi nga xam ne falaa bëggoon a depuis que décret bi génne ba légui ah, ngeen fas tuddé école bobu école Badara Mama Yacine comme nima ko waxé Badara Mama Yacine kuko wax wax Tëngéej ku kuko wax wax Sénégal à travers arbitre international bi nga xam donon nako euh tay ñan ñoo leen fekk ci loolu depuis que ba ngeen commencé ba légui ñan ñoo leen ci uy c'est favorablement favorablement on commence euh, d'abord euh, par le maire de la commune nord saint Kassé bi ñu commencé ba léegi. Mm. tegul tànkam ci jël na deux millions dugal ko ci gis nañ ko mel ni dudu ko ne dugal na ci alal gis nañu le général Mamadou Gueye Faye dugal na ci loxo. un ami de Badara Mamé c'est un ami d'enfance ñu koy wax Ndiaye ci le directeur de votre télévision. Mm, suñu télé bi Galaxy TV. Assane Sarr Assane Sarr oui. le président. un grand monsieur Ndongo Ndaw mm-hmm. ku monsieur. ku baax ku mën def lu baax ci ak d'autres façons yi nga xam ne ku nekk dugal na ci loxo pour le moment taxaw ci lancer un appel mhm. ñu tous les façons les refus, les Doka qui nga que ne Badara tax nous hommes. nous li am ñu ngi sommes di ñu ci mbir mi nous ci parce que sommes Badar fu ñu jaar Badara tax ñu jaar fa ñooñu nañu bàyyi xel ne dégg nañ ñu publicité yi Galaxy TV wane na ko leer na nañ parce que télé bii ku fi ñëw boo bëggee feeñ di nga feeñ te feeñal na ko kon ñu ngi wax ne Galaxy TV nee na nu ngeen uyuse Badara ci bësam bi loolu moom maa ko wax euh, merci euh, euh, indiloon tey nag fas yéene jàkkaarloo woon ak ki nga xam ne moom mooy mbay jong euh, may amaat encore satisfaction euh, ci li nga xam ne moom lañ jël tuddee ko ki nga xam ne moom mooy feu Badara Mamaya Sène nga wax ko sànq seen ay attente mooy képp koo xam ne yaa ngi dégg tour ba dara Badara Mamaya seen mu am dara lu muy def sa nopp rek nga ñëw uyusee si bés boobu nga xam ne moom ngeen taxawal euh, maintenant bés bi yéen tey su ngeen taxawoon wax attente yi ngeen xam ne yéen ko ci xaar maanaam seen biir xol li nga xamne mom ngeen bëgg ci bës bi lanax lan la parce que tuddé ni man nañ jël ben symbole ni rek ñu teg euh, affiché ni tuddé nañ ki mais après lan ngeen di xaar euh euh li ñi xaar moy gis nga école de face dafa nekk école bo xamne dar salam face dangu euh face no fly ndar gu Ndaw presque suñu doom yëpp la ñuy jàngee bëgg nañu suñu jógee ci li lépp luñ ci am mu des dañ koy dugal ci école bi defaraat bu gën a baax pour l'avenir de nos enfants loolu mu ñu gën a tax ñu gën a taxaw ci bés bi defaraat ko ba nga xam ne ëllëg mën na nekk sax. lycée benn lycée. Mm-hmm. bu am primaire. pourquoi pas loolu ñu ngi ci projet yooyu. Mm-hmm. mais lépp mu ngi dépendre rek. ci li nga xam ne nii moom la ñu commencé ren mu nekk une première te bu ñu ko tuddee mën nañu ko def chaque année ñu defal ko anniversaire luñ ci am rek def ko ci école pour dëmali vraiment l' école de Fass. waaw ñu lay remercier bu baax. monsieur Mbaye Diong ci dalu tamit di gërëm euh, suma soxna mu nekk adjointe maire ville. Mm, madame ñu ngi lay remercier Sène Ndiaye.

moom ci boobu te am na ci taxawaay bu am solo. waaw loolu mooy ngor. Hmm. Euh, loolu mooy ngor mu bokk suñu ay valeurs ancestrales yoo xam ne nii mën nañu ko bàkkee saa su nekk nga koy féddaliwaat encore une fois euh, mooy wane na rek nit koo xam ne servir na la ba génn fi dem tey war nga koo mën a delloo njukkal tey si delloo njukkal boobu nga xam ne yéen a ngi koy delloo njukkal ki nga xam ne moom mooy Badara Mamaya Sène euh, ñu di leen defal appel bi ñun encore une fois travers les antennes de Galaxy TV Sénégal di wax képp ko xam ne sénégalais nga nga dem wuyu ji ci li nga xam ne moom mooy cérémonie boobu tey am ngeen ay sponsor ay partenaires yoo xam ne ñëw nañ taxaw jàpp si bés bi. non sponsor uti ñu parce que dañu Badara Badara rek sponsor la Badara boo bindee turam rek ku ko gis am na lu mu seq ak yow da war a ñëw uy bu la ooyee ba oowulee sax war nga ñëw. joxe sa participation. voilà soo gisee mu dugg ak yow foofu noonu euh, c'est fait exprès. Hmm. mooy ñi nga xam ne nii tey am nañ loo xam ne yaakaare na leen ko euh, te soo demul si ñoom ñoom duñu jóg tey occasion la ñoom ñu jóg dem ngir rendre icône internationale boobu hmm. li nga xam ne moom moo ko moom euh, te muy Fass gi nga xam ne fa la dëkk bay fa waaram nga wax ko ni nga ko waxee sànq que ne asson son vivant la doon def ci école boobu nga xam ne moom mooy école Fass hmm. donc suñ wëlbatikuwaatee tuddee ko ko dañ naan duñ ko tuddee ba pare ñu taxaw fële ne lan moo tax ñu tuddee ko ko donc ñu bëri dinañ xam kii li nga xam ne moom lañ ko tuddee hmm. mérite la boo xam ne defal nañ ko ko ñu koy ñaanal moom Badara Mama Yacine fi mu tëdd euh, mu gën ko fi nga xam ne ne fa la jógee lépp loo xam ne nii ñu ngi koy ñaanal ci journée boobu mu xam wàcc kaamil yi ngay wax yëpp mm. yàlla na ko yiwu fekk fa fa nga xam ne euh, fa la tëdd ñu lay remercier waat encore une fois di amaat mbégte ak kontaante dalaloon la fii ngi nii suñu plateau Galaxy TV Sénégal di la wax ne si kër gi nga bokk comme ni nga ko waxee ñu bàyyi la nga tàggoo say téléspectateurs waaw may delluwaat di tàgg rek euh, euh, waa waa Sénégal waa Tëngéej sama quartier Fass mi nga xam ne sama fierté la di nuyu suma waa grand place actuellement ñoo xam naa ñu ngi may suivre. Mhm. ñoom Jibi Sow Bati Ndiaye Adama Diop ñoom Matar Sougou ah, ñoom Pape Souley ñëpp ñu ngi may suivre Papa Gueye Moustique ñoom ñëpp ñu nga fa ah, ñoom Bassirou Mbàcc ah, ñoom ñëpp ñu nga fa actuellement xam naa ñu ngi teg seen lowal di naan. mais mhm. maa ngi kontaan ci ñoom ñooñu ñu baax lañu. ñoo ngi leen di bëgg ak ñoom ñëpp ñu bëggee ñoom it mhm. ñu bëgg Galaxy TV lañ. dañ koy suivre fa mu nekk. fii mooy seen télé. dëgg la mais nag comme ni ma ko waxoon fii ma fi mujjee Accra. ak Alpha mhm. fii la mburum mi xoyam xoyam. waaw ñun ñoo caat. fii daal moom xam nga caat moom ñépp koy bëgg. fii la kër gi fii la kuy wër kuy kuy wër kuy wër télé. kuy wër fii. soo ñëwee Galaxy taxaw. ah man de naan naa fi café boo xam ne. loolu moom kontaan naa ci télé bi daal yàlla na ci yàlla def parquet. ki ko fi def yàlla na ko yàlla dimbali. amiin amiin lafal yàlla na ngeen génn. amiin ëpp doole ci télé yi. parce que ñun suñu fierté la tëngéej. man bi ma xamee fii rek dem benn télé. fii laay ñëw. te des na am na lu ma war a wax ak ñoom Alpha ak ñoomin kii. Ah. loolu dinaa ñëw fii def si ko fi. incha ñoo ngi lay xaar. ñu ngi kontaan bu baax ñoo ngi lay xaar bu baax di ñaanal nag euh, waa ñu wax nag waa tëngéej waa Sénégal. Mm. le 23 décembre. incha allah na ñëpp ñëw ku jot carte. ku jotul carte te loo séexoon ak Badara mm-hmm. walla mu defal la ko wala nga defal ko ko invité nañ la nga ñëw teew ci bés bi à partir de quinze heures si biir enceinte école Fass lañ koy def cérémonie bi ñuy ñaanal ñëpp yàlla na ñëpp wér tal te fekk bés boobu mm-hmm. ñu feete ko ñaanal ko ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di la ñaanal yow it yàlla guddal sa fan doon lu wér amiin yàlla defal la barke. amiin yàggal la gën la may ndam. ci lii liggéey yàlla yóbbu la fu gën a kawee fi. amiin loolu laa amooy wax maa ngi remercier ñëpp. di gërëm ñëpp di gërëm sa technicien bi. Ah, sonn na mhm. njaga ñu ngi lay gërëm di la sant kontaan ci yow. gis nañ vraiment taxawaay bi nga taxaw suubale yaa ngi yëg ko wàcce di ñu monter affaire yi yàlla na yàlla barkeel la mhm. guddal sa fan. amiin dolli sa xam-xam. ci walu technique bi je vous remercie infiniment merci. merci beaucoup monsieur Mbaye Diong ñu amoon dalal la fi encore une fois suñu plateau Galaxy TV euh, di remercier comme ni nga ko waxee le PDG monsieur Sarr ñu koy remercier bu baax a baax a baax liggéey bi mu def amna solo ndax ku ubbi entreprise ne jeunes yi kaa leen ngeen liggéey defe yow ya bëgg développer ce réew donc ñu lay remercier ci lolu encore une fois di la wax bonne continuation di la wax li nga bëgg sa kër gi Galaxy TV ya ko xam comme ni nga ko wax waxee yàlla defal la ko te xam ne su la ko defalee ñun la ko defal ñun ñi nga xam ne ñun ñooy ñëw euh, di fi dadaan xam-xam ñun ñoo ñëw di fi partagé li nga xam ne jox nañ koo xam as néew ak suñu ay téléspectateurs waaye ñun ñooy ñëw di fi loo xam ne nii koom-koom la boo xam ne nii dañ koy jël yóbbu ko kër ga donc ñu ngi lay encouragé bu baax di remercier Ndiaga mi ñuy wax Ndiaga Ndiaga Ndiaga Massa euh, tool ba lu fi leer <laughs> wala lu fi baax mom la sonul tayi wala H24 mo ngi ci kër gi remercier aussi di remercier euh, le désert mar ñukoy remercier encore une fois di remercier tamit euh, tous ceux qui me reconnaîtront à travers Galaxy TV Sénégal euh, li lañ leen indulon tay ñu jox la benen rendez-vous ak kenen fi ci Galaxy TV Sénégal merci beaucoup monsieur Mbaye Diagne en l'honneur d'un homme dont l'engagement a marqué nos vies, la population de Fès et la commune de Rufisque Nord se réunissent pour une cérémonie exceptionnelle. Le samedi 23 décembre 2023, un événement mémorable aura lieu. Baptême de l'école Badarama Mayasen, autrefois connue sous le nom de École FAS. Cette journée revêt une signification toute particulière, dédiée à la mémoire de feu Badarama Mayasen, un homme de valeur dont l'héritage a illuminé nos vies, son dévouement envers l'éducation et le progrès de notre communauté a été exemplaire. Nous vous invitons à nous rejoindre pour cet événement inoubliable, symbole de respect et de reconnaissance envers cet homme dont l'influence reste profondément ancrée dans nos cœurs et dans l'histoire de la ville de Rufis. Le samedi 23 décembre 2023, soyons tous ensemble pour célébrer le baptême de l'école Padarama Mayasen, honorant sa mémoire et son héritage dans la chaleur et l'unicité de notre communauté avec la Galaxie TV Sénégal. d'un homme dont l'engagement a marqué nos vies, la population de Fès et la commune de Rufisque Nord se réunissent pour une cérémonie exceptionnelle. Le samedi 23 décembre 2023, un événement mémorable aura lieu Baptême de l'école Badarama Mayasen, autrefois connue sous le nom de École FAS. Cette journée revêt une signification toute particulière, dédiée à la mémoire de feu Badarama Mayasen, un homme de valeur dont l'héritage a illuminé nos vies, son dévouement envers l'éducation et le progrès de notre communauté a été exemplaire. Nous vous invitons à nous rejoindre pour cet événement inoubliable, symbole de respect et de reconnaissance envers cet homme dont l'influence reste profondément ancrée dans nos cœurs et dans l'histoire de la ville de Rufis. Le samedi 23 décembre 2023, soyons tous ensemble pour célébrer le baptême de l'école Badarama Mayasen, honorant sa mémoire et son héritage dans la chaleur et l'unicité de notre communauté avec la Galaxy TV Sénégal. d'un homme dont l'engagement a marqué nos vies, la population de Fas et la commune de Rufisque Nord se réunissent pour une cérémonie exceptionnelle. Le samedi 23 décembre 2023, un événement mémorable aura lieu. Le baptême de l'école Badarama autrefois connue sous le nom de École Fès. Cette journée revêt une signification toute particulière Dédié à la mémoire de feu Badarama Mayasen, un homme de valeur dont l'héritage a illuminé nos vies, son dévouement envers l'éducation et le progrès de notre communauté a été exemplaire. Nous vous invitons à nous rejoindre pour cet événement inoubliable, symbole de respect et de reconnaissance envers cet homme dont l'influence reste profondément ancrée dans nos cœurs et dans l'histoire de la ville de Rufis. Le samedi 23 décembre 2023, soyons tous ensemble pour célébrer le baptême de l'école Padrama Mayasen, honorant sa mémoire et son héritage dans la chaleur et l'unicité de notre communauté avec la Galaxie TV Sénégal. cherchez des solutions en métallerie pour vos projets de construction Ne cherchez pas plus loin. Bienvenue chez Sen Metal Technique, votre atelier de fabrication de confiance pour les métaux de haute qualité. Situé à la l'adresse d'Argundao, derrière le camp sapeur, Sen Metal Technique est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de divers types de métaux, y compris le fer, l'inox et l'aluminium que vous travaillez sur un projet de construction résidentielle, commerciale ou industrielle, nous avons les matériaux de métallerie qu'il vous faut. Mais notre engagement envers la qualité ne s'arrête pas là. Chez Sen Metal Technique, nous comprenons que la construction ne se limite pas aux métaux. C'est pourquoi nous proposons également une vaste sélection de produits pour le bâtiment, tels que des portes, des fenêtres, des rampes d'escalier et même des escaliers colimaçons. Nous avons tout ce dont vous avez besoin pour faire de votre projet une réalité. Notre équipe dévouée est prête à vous aider à trouver les matériaux et les produits de construction adaptés à vos besoins spécifiques. Qu'il s'agisse d'un petit projet résidentiel ou d'une grande entreprise commerciale, nous sommes là pour vous fournir des solutions de haute qualité. Faites confiance à Scène Métal Technique pour tous vos besoins en métallerie et en